benn Pierre saar ñaar kon nag dëddu gépp coxor gépp njublaŋ naaféq ki ñaan ak jëw ginnaaw ay liir ngeen yuy doora juddu te mos ci mbaaxu borom bi nàmp leen ci meew mu sell miy dundal seeni xol ba màgg ci biir mucc yàlla kon nag ñëw ci moom nit ñi bañ nañu ko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 doj wu tedd la wu ma tànn ku gëm ci moom sa yaakaar du tas mukk kon nag yéen ñi gëm am ngeen cër ci teraangaam waaye naka ñi gëmul doj wa tabaxkat ya sànni mujj na di doju koñ te doj la wuy fel nit di xeer wu koy fakastal dañu cee fakastalu ndaxte gëmuñu kàddu yàlla te loolu la yàlla dogal ci ñoom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 waaye su ñu leen fitnalee ci def lu baax te ngeen muñ ko jëf ju rafet la fa kanam yàlla ndaxte ci loolu la leen yàlla woo ndax kirist itam sonn na ngir yéen teg fi seen kanam royukaay ngir ngeen jaar ci tànkam musula def bàkkaar te jenn waxu njublaŋ a génn ci gémmiñam saaga nañu ko te feyuwul fitnaal nañu ko te tëkkuwul